mbokki jullit yi <clears throat> mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam di ñaanal ñëpp yàlla di sàkku si ñëpp ñaan <clears throat> di ñaan yàlla yàlla jàmm sax si Sénégal yàlla yàlla tàppi xol yi def leen benn yàlla daq seytaane gi nga xam ne mosu dañ di dugg ci diggante ñu baax ñi pour jaxase e, maa ngi woo ñëpp ci bennoo googu <coughs> maa ngi woo ñëpp ci nangurante googu ndax li yàlla def moom doomu aadama bu ko nangurit dafay sonn rek waaye loolu la yàlla def te it Eh, nit fekk ab xutbu mu askane ko suufe du tax xutbu bi nekk lu suufe loolu waaye nit fekk leneen nit askane ko xutbu yi du tax leneen nekk xutbu nga leen yàlla koy joxe te jox na ko ñu ko neex <coughs> borom xam yi ñoo doon yonent yi wali yi ci ndëgg yonent yi rek lañ nekk Eh, te yonent yi kat li yàlla jàngal mooy laa nu farriqu bayna ahadin min rusulihi duñ teqale diggante kenn kenn ñun mboolem yonent lañ bokk gëm ñoom lañ bokk xormaal waaye suñu bi yonent nag mooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gëm giñ gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du tax ñu doyee dal benn yonent wali it wali boo mën a jël rek mu ngi ci ndëggu ab yonent te kenn ku nekk ci ñoom booy boo ko xoolee da xam ne am na ay jagle yu bari yu ko yàlla jagleel te soppe bi yàlla la boo xam ne boo ko noonee rek am am problème ak koo mën a doon nag <coughs> ndax yàlla ñëpp la ci dugal ku ma noonool sama wëli ma déclaré la guerre kon nañ bokk xormaal mboolem wëli yàlla it ragal leen maanaam ragal seen martaba ndax kat koo ci noonoo musiba dal la loolu ku ne war na ko ragal lor googu nga xam ne mën naa jógee ci wàllu bi ñëw dal sa kaw yow mi nga xam ne yaay nekk di wax seen dar du jaaduwut war nga ragal noonu ak yàlla ndax loolu ci ragal yàlla la bokk kon su ko defee lañu waxoon ci yonent yi na ko suñ lisaanul xaal wax ci wàllu yëpp mooy laa nufarriqu bayna ahadin min awliyaa'ihi duñ gën benn waliyu di ba beneen loo weddi sa wali ci ab waliyu rek sa sëriñ nga weddi rawatina bu fekkee sa sëriñ yàlla dafa dajale ci moom lépp lu mu war dajale ci moom xam nga ne su boobaa kuñ tàggati sa sëriñ lañ tagg xaw ma dégg gën mam déet ku am may te muy dëgg du jaaxle du jaxasoo du bañal kenn ak mayam dégg nga te may googu nga xam ne yàlla def na ko ci moom fu mu ko gis ñu tagg ko dafay kontaan waaye du mer <coughs> du mer ku yàlla dimbal nag yow ba nga mën a toog di wax ak yàlla nit ñi foog na ñoom ngay wax ak ngay mos loo xam ne nii fukkeel ba bu ko nit ñi mosoon léegi te ñu ñàkk seen bopp ndax duñ fi nekkati. yaa ngi dund loo xam ne nii sa lépp sant yàlla la yow waratoo tal xuloo bal yërmaande nga war a am ci mbindeef yi boo xoolee li ngay dund ak ñoom la ñuy dund boo xoolee kiiraay gi leen wër ak jaxasoo gën jaxasoo dëgg-dëgg da nga leen war a yërëm ñaanal leen yàlla waaye waratoo xuloo ku yàlla may loolu waratut xuloo su ko defee nag kullu xisbin bi ma ladayhim farixoon kuréel gu nekk lañu am la ñuy bëggee yow nag yàlla dimbal na la béggeexoo àddina ak i xewalam béggeexoo àllaaxira ak i xewalam yow yàlla ci boppam ngay bëggee <coughs> yàlla may la ci loo xam ne nii nit dana taxaw ne suufi laa sax suufiyanke laa sax di di di weddi loolu te suufiyanke yëpp ci loolu la ñuy xoote dëgg-dëgg yow sant yàlla moom moo la war waaye leneen warul la waratoo gersu ndax am nga lu la doy soxla dem nga ba xam ne sa soppi bi mënoo tourner lu mooy ne moom rek ngay janoo ko dem nga ba xam ne sa soppi bi dara mënul xew lu mooy ne moom moo ko def dem nga ba xam ne sa soppi bi gisoo sax leneen lu dul moom waaye léegi soppi bi nan lay defee dara mu di la déranger bu mu la déranger sa soppi baa ko def sa waa ji moom moo ko def dégg nga te daf lay natt rek <clears throat> ba xam xàmmee nga ko walla xàmmee woo ko waaye moom rek la su ko defee maa ngi ñaan ñëpp ñu tàppe xol yi. taalibe bu nekk sañ naa tagg sëriñam ndax taalibe warul gis sax keneen ku dul sëriñam waaye nag war naa xor xormaal sëriñu jàmbur léegi nag la may woote mooy kenn ku nekk na nga nangul sa morom. man de màngul naa mboolem wëllu yàlla yi <clears throat> te duñ wax ci wëllu yàlla benn may ba mu déranger ma parce que xam naa may gi man may la <clears throat> man wëllu yi boo tagg maa ngi jàpp ne sama sëriñ ngay tagg ndax moom laay gis ci moom su ko defee aw moom problème loolu hmm. am na ñoo xam ne dañ leen war a joxañ waaye ñoom war ñoo joxañ kenn su ko defee <clears throat> buñ nangulantee rek. coow du am lan mooy nangulante gi mooy xoolal kenn ku nekk rek ku ne xam ne Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu anhu war daaw wala yàlla bu mag a mag a mag a mag te waliyu du wax lu waxuwut du wax lu amut Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu war daaw wali yàlla bu mag a mag la su ko defee nañ nangul Cheikh Tidiane may gi ko yàlla may nañ nangul Cheikh Ahmad Bamba may gi ko yàlla may Cheikh Ahmad Bamba <clears throat> moom nangul na Sëriñ Tu euh, Cheikh Tidiane ndax wax na ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad tijaani wa li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qatan ala sawaabi yaa ngi dégg mune ne bépp wérta dafay xeggale taalibe bi ci pay yàlla bi yéen sant leen yàlla ba ngeen yeggee foofu loolu rek moo taxoon a jug wérte yi wérte li ko tax a jug mooy yegg ci pay bi yow mi yàlla may nag ba nga yegg foofu doo sant bépp wérte dafay xeggale bi ci pay yàlla bi mooy moo xam mu askanoo ci jiiraani wala mu askanoo ci Ahmada Tijaani wala mu askanoo ci keneen ku dul ñoom ñaar ci xutb ndax ñoom ñëpp ñu ngi ci njub kon moom boole na Cheikh Ahmad Tidiane ci xutb yi moom Sëriñ Tuba wane ne moomak ak wëli yi yëpp ñu ngi ci njub lu mel nii Cheikh Tidiane wax na ko wax ne yooni góor ñi ñoom ñëpp dañuy yeggale ci yàlla <coughs> ñoom ñëpp ñu ngi ci njub ba muy wax chartaay tarixa bi waaye def ne lii moom mooy suñu chartaay tarixa bi rek mais teek euh, yëkkatuñ suñu bopp ci kaw wëlli yàlla yi wala ñu xeeb leen ndax ñoom ñëpp ñu ngi ci njub kon moom it nangul na mboolem kuy wëlli yàlla ñu jiitu ak ñu jamono ante moom ak ñu ñëw gannaawam na daf na ñoom ñëpp ñu ngi ci njub su ko defee bu su boobaa léegi kenn ku nekk rek war ngaa nangul sa morom ay waxam nit boo ko nangul ne wëlli la ba pare nga ne lam waxamut wali <laughs> moom du du amut waaw Serigne Touba nangoon na Cheikh Tidiane lan la Cheikh Tidiane wax daf ne sama ñaari ndood tànk yi mu ngi ci ndodd bépp la ko commencé ci aadama ba ba ñuy wal buftu ba maara wali yëpp ab xut bu du wax lu amut waaw Serigne Touba moo ne Cheikh yi ku jàpp ci wér daam mu yeggale la ci yàlla moom ak yeneen wala lii yëpp ndax ñoom ñëpp ay xutbu lañ waaw moom ak yeneen xutbu yëpp ndax ñoom ñëpp ñu ngi ci njëb waaw Cheikh Tidiane mu moomu Cheikh Serigne Touba nangul ni doo ko nangul lii weddi la de afatuminuuna bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi baadin <laughs> loolu kenn du ko def nangu leen weddi leen loolu yàlla daf ko ŋàññi loolu wala lii yomb na ko su ko defee nag Cheikh Tidiane daf ne. moom ñaari ndoddam yi mu ngi ci kaw mboolem wëlliyu commencé ci aadama ba bañu wal buftu ba lool koy doy na su ko defee yow nag boo xamee loolu eh, sëriñ ci nangul ko ko mboolem sëriñ eh, wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla nag hmm? Hmm? loo gisati rek da sant yàlla xam ne yow sa sëriñ la ñuy tagg rek <laughs> xam nga dégg ngeen moom déet lan la Cheikh Tidiane waxaat nee na wëlli du naan lu mooy géej wëlli bu yàlla mën a bind gannaaw saxaaba yi ci saxaaba yi ba bis penc <coughs> wëlli bu naanati rek mm, maa ko naan dal mm. loolu la moom mooy tëbb mboolem wulli yi amul benn wulli bi am benn may ci yàlla nee na lu mooy mu jaar ci moom naka lay nekkee wulli ba pare di wax loo xam ne amul ñu koy lu mu wax mooy dëgg su defee nag bu fekkee nangulante nañ rek amul duñu am problème waaw Cheikh Tidiane moo ne wulli bu naan rek ci moom nga naane Serigne Touba tagg ko boole ko ci xutb yi xam ngeen ne Serigne Touba <coughs> kooku bañul Cheikh Tidiane ay waxam de waaw bañulul koy waxam de Cheikh Tidiane nee na wala yu bu naan moo la naan dal waaye nag soo gisee wali bu mel ni Cheikh Tidiane nga gis beneen wali yu naan ci géejam ñu tàggee ko loolu da ngay sant yàlla rek parce que loolu géeju Cheikh Tidiane rek la man ma gis mooy ne nañ nangulante buñ nangulante rek coodo am buñ nangulante dañ nangul Cheikh Tidiane yi te ñaari wax rek buñ ko ko nangulee xam mooy kan mooy ne ñaari ndodd tànkam yi mu ngi ci ndodd bépp wulli yàlla la ko aadama ba bis penc loolu kay ah, ko ko nangul kay dootoo waxati dara <coughs> nee na wulli naan ak wulli yàlla mosum bind <coughs> mboolem awliyaaw yi ca aadama ba bis penc mboolem kuy wulli rek ci moom nga naanee wax na ne lépp lu jugee ci bee pay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent lay jaar waaye lu génnee ci nu bu wutu man maa koy dékk dëkkandu man Cheikh Tidiane ci man lay jugee jëm ci mboolem mbindeef hmm? su ko defee ku am ku mel nii nag loo fi jëkkati di cooti man wali bu ma gis gis Cheikh Tidiane ci moom <coughs> su ko defee du ma sonn bëgg naa ñëpp xormaal naa ñëpp waaye nangul naa sama sëriñ li mu wax nag. waaw te Serigne Sakho ko njëkk nangul Serigne Sakho ko njëkk a nangul muy Cheikh Tidiane de laal hmm? xam nga yéen a ma déggam déet Serigne moom boole na ci xutbu yi te Cheikh Tidiane moo wax lii nee na moom gannaaw nu wóotu lépp ci moom lay jaar ku naanati ci moom ga naane loolu koy jeex na hmm? ñaari tànkam yi mu ngi ci ndoddu bépp wëliyu muy xatmiyatu ak katmiya waaw wala boog muy nubuwa eh, maa ngi kii xatmi ak katmi wala sharia ak tariqa sud na ci wàllu yëpp moom moo ko wax bu defee ñun nangul nañ ko loolu xormaal nañ wàllu yëpp waaye doy nañu sëriñ doy nañu jubluwaay te nangu nañ ay waxam xam nañ it maqamam foo am nag wali wu nekk ci tànk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ndëgg yonent bi loolu mënul ñàkk de <coughs> mënul ñàkk de te moom moo xoote maqaama alxatmiya moom Cheikh Tidiane yàlla may ko ko taalibi mi bind ci loolu it buñ ko ko nangulee kay coow am alxatmiya mooy lan mooy ki tëj wilaayatu Cheikh Tidiane gannaaw bu ñëwee wali du melati ni moom tekkul ne alxatmiya mooy koo xam ne ni mm, dégg nga gannaaw wali amut kooku xatmiya boobu yonent yàlla Iisaa moo koy tëj waaye xatmiya bii ñu wax mooy koo xam ne ni gannaawam wali bu mel ni moom du amati <laughs> waaw naka lañ koy nangulee xutbaan yëtu nangul ko ak jub ak njub te duñ ko nangul lii nga xam ne nii mooy pas-pas bu nga xam ne moom moo ko wax taalibe mi gëm ko <coughs> moom mooy xatmu ci xatmu lawliyaay الخدم الأولي إن حربي الحاتمي دان بيب المقام بوب لنقول ليس لك ما تمنيت وظننت فإنما هو اللي لولي في آخر الزمان لغي مببت ديكو ياكار بيو وأبو اللي وينيو تيموجك جمونا مكوم من <laughs> حربي الحاتمي يا الله خمال نكون مقام خدمي بوب ودو ياكم تدقنتي مشيختياني يعني ay téeméeri téeméeri at la dem nañ bañ xam ne maghrib lay wali yi boobu juddoo ñaata xaddis ñoo ñëw di wax ne ab kuréel ci soow duñ des dañ mukk di nekk ci dëgg ba yàlla di doon suuf si ak la ci kawam mu ne jagleel nañ ko maghrib parce que maghrib mooy feeñuwaayu borom maqaama boobu di xatmi ya kooku dëgg-dëgg may googu Eh, kenn du ko am ba pare di di xoolal leneen dafa wax lu yéeme ne moo yónni yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yaarami arab yi waaye wa axari nag moo ko yónni ci way mujj yi lu tax mu tudd way njëkk ñeeg way mujj ñi te ba mu tuddee mujj ñi dégg nga mm, <coughs> dégg nga baram mm, Cheikh daf ne way mujj yooyu ñooy samay taalibe waa axari na mujj ñooñu alquran jagleel ak tagg ñooy samay taalibe xanaa kay lool it war nañ ko ko nangu moom nasu alquran la am xadis ñëw na yonent di wax ne ab mbooloo danañ ñëw yowmal xiyaamati bu ñuy tudd yàlla dañuy lal malaan yàlla danañ yéegee ci daraja ji gën kawe loolu gisoo ku lu ma ci taalibe bi dëgg-dëgg nag kii nga xam ne nii woo xam dëggal na ko alquran dëggal na ko xadis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëggal na ko eh, Serigne Touba dëggal na ko. ndax dégg nga li mu wax ci moom wëlli yàlla yi dëggal nañ ko mu am nag ay wëlli yoo xam ne koo ci waxtaanee nga yaakaar ne war naa mën a samp tariq ay ma ne yéen kooku bu ngeen ko am ba pare nekk fii di wax leneen <coughs> kooku duñ ko am ba pare nekk fii di wax leneen xool leen bu baax seen bëti xol da nga gis ne mboolem yónnoon ci ca mbooloo lañ leen yónni woon ak lu seen may bëri bëri ak luñ for for ci yàlla waaye yónni wuñ leen ci ñëpp. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ñëpp lañ ko yónnoo xooteem dafa matale xool leen bu baax seen bëtti xool da ngeen xam ne mbooleem wali yi konteel wali yi àddina bi yëpp laay wax nag kenn ku nekk rek sa xoote ci mbooloo la jagoo wëlis mbooloo waaye xoolal Cheikh Tidiane xoolal ndoroom la Cheikh Ibrahima seen xoote dafa daj fépp moo tax Baye moom xam teel naa xam ne sirru yonent la yore moo tax ba mu ñëwee rek dafa ne man sama woote bi dana daj fépp. fu tijaaniti yegg rek dana fa yegg wax na ne sax dana daj suuf si yëpp kenn du ko téye kenn du ko taxawal ndax sirru bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la dégg-dégg ko am garante boobu nag loo fi nekkati di jéem a kii ñun nañ lab ci tudd yàlla bàyyi nit ñi di tudd nañ des ci xam yàlla wëccee nit ñi inkaar su ko defee suñ ko defee rek danañ jiitu danañ danañ raw maa ngi jégalu ñëpp di ziar ñëpp. Eh, di xormaal mboolem wulli yàlla yi waaye nag am naa dura dégg nga tànn sama sëriñ bii di Cheikh Tidiane muy sama sëriñ am na dura nangul ko ay waxam gannaaw bu ko sëriñ Touba nangulee gannaaw bu ko Cheikh nangulee gannaaw bu ko Seydi El Hadj nangulee gannaaw bu ko Cheikh Ibrahima nangulee Seydi El Hadj Abdoulaye nangul ko ak mboolem wulli yàlla yi nangul ko man am naa dura nangul sëriñ boobu ay waxam te ku ko nangul ay waxam rek xam ne amul morom. إن أريد إلى الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولين باي برهاما جرجي في باي ورنانيو جرجي في باي